ಗಾನನಿಗೆ

Alioune Seye Junior na ma may sax ñu bëree man la caatu Ndakaaru Alioune Seye Junior na ma may sax ñu bëree tapet lañu mbër yëpp ay tapet lañu barki Seydina Mohamed gane mbër yëpp ay ragal lañu pam do yëngal la lamb ay waay fii su Dakar mu doo dara barke alxuraan moo la man moo la man barke alxuraan lii du ko ma pap nooye moon papaam sax Modou Lo lañ ma ko jox man Ahmed ma duma daan ko. Papa Papa Ndoye ñëw na. rek alhamdulilah damaa war a dama war a bëre. na samay moroom ñëw ñu bëre. samay moroom xam nañ seen bopp xam naa sama bopp. quart de finale laa doon bëre def na demi finale ak samay moroom nañ ñëw ñu bëre. yaa ngi fi ba bàyyi. doo ñu def différence yu bëri nañ ma jox samay morom yooyu ñooñu seen papa laa seen papa laa nañ ma xoole bëtu baay seen baay laa seen ay grand laa soxla mais du ñoom. barki daal yaay seen ministre dégg na sama yaram a tàng dama ko doon dindi moo ko téye ku ñëw baax na. dama pare war a bëre dama entraîné ba dee war a bëre donc samay sifar man mbër mësuma yeb samay morom yoruma biir yoruma dara mbër mësuma yeb man la bébé Modou Lo ñii di wax dëgg la bébé Modou Lo forme yi xoolal forme man may xale maa daan wuli de maa daan yegsil maa daan mojja maa daan buubu fit lu leer laa la wax général Maliko moo ma daan yaa may dégg lii ma aram lii du doole yar yaram la du doole neuf ans juróom-ñeenti at nga def ko Europe mel nii musul am. xam ni gaynde la sama yaram a tàng tayu ma ko barke Seydina Mohamed pare naa pour ñëpp ku ñëw baax na ku ñëw baax na dama war a bëree ànd sama grand la grosse di liggéey lu metti di ko ñaanal yàlla may ko ndam ci combat bi ay xale ñu bëre dañuy sant yàlla ñu ñàkk a bëre dañuy sant yàlla mais il est temps sama yaram moo tàng programme wu ma ko mais dama toog ba mu yàgg ma jóg taal oto bi jóg ñëw stade parce que sama yaram a tàng. seen voilà nañ ma xoolee ba du bàyyi. nañ ma jox seen ay gër. PAM day wax loolu suñuy wax. Mawlo mi de yaa ko daan yow. Mawlo maa ko daan. jël bu rëy stade bi. waaw jël bu rëy laa ko daan. PAM doy na ñëw ñu ah 14 victoire la ba am doy na ñëw ñu la de lama ji la may loolu la ma ay moytonte ay taw kii dañoo war a bëre moom. ñu laale lu neex. maa ko dàq bëre fuuf. bu ah. sañ-sañ fuuf. barki alxuraanu karim bu ñu bëree mu weddi boppam. affaire bi du ay ngand kii donc déedéet ah. na bëree. barki alxuraanu karim na ñëw bëree. nga ne lan. dama demee. mu nekk moroom. kii non non non kooku du ma mën a moom. waa ji xam nga man ak kër ga ñu jox sama avance ñuy daw. Pape Ndoye joxal ko sama avance woo ko jox ko sama avance muy moog Dame Sène. Eh, Dame Sène loolu lan la. man man damaa pare pour ñoom man samay adversaire de taay gaa gi yaa ngi dégg man li mu ma ay yoon bëgguma yoon bu yomb wala ay paa wala nanga ay mag. seen lamb yëpp a métti ay morom ngeen nañ ñëw ñu bëree. mosoo ñu fekk ah, ma ko dàq mais nañ ñëw ñu am nañ promoteur yi taxaw bëgg ko ñoom ñu daw man damaa waxaale ba jubóo instant bi ba pare te jox ma avance donc si des mais ay tàppar nga ñu bëri nii. lamb jàngoog kay fii a ñëw leen. lamb yow ci lamb. fekke nga sama lépp si lamb. waaw ah, loolu am na. waaw mais mbër man kenn du ma kenn du ma suul. damaa liggéey si lamb bokk si lamb. te damay wax nag. 28 combats laa bëre 7 défaites benn match nul 20 victoire ma xool ñu may suul. booy nañ ñëw bëre man. wala booy bu ma teyee ci lamb damay xeex ak nday yow. <laughs> ay waay lamb tey ji yooyu. Garo Gare ak Fils Ibrahima. Fils de Zalo dox ci kawam Garo Gare ma def ngemb lu ñuul la. Fils de Zalo ma def ngemb lu si Garo Gare. Garo Gare. jël na la jël na ko jël na ko. ay dee. daan na Gana Goor daan na Fils de Zale Lo waay jël ba rëy <laughs> la jël bu ay Gana Goor waaye lii lan la Ibrahima lii lan waaye Gana Goor waay Gana Goor ragal du dem guerre waay la jël bu rëy ya dafa xaawa sori waaw waaw waaw Modou Lo mi ne yaa ko daan yow maa ko daan jël bu rëy sa waaw jël bu rëy laa ko daan Pape Ndoye na ñëw ñu bëre ah 14 victoire la Pape Ndoye na ñëw ñu bëre ah! dégg la de lama ji lama la mooy loolu lama ay taw kii dañoo war bëre man ak moom jël naa la lu neex maa ko dàq bëre fuuf bu eh! sañ sañ fuuf barki alxuraanu karim bu bëree mu weddi boppam affaire bi du ay ngand du ay ah! bëre barki alxuraanu karim na ñëw bëre nga ne lan. boo demee. bu dee. kii mooy papaam damaa nekk moromam. kii non non kooku du ma moromam. waa ji xam nga man ak kër ga. ñaa ñu jox sama avance ñuy daw. Pape Ndoye joxal ko sama avance woo ko jox ko sama avance muy daw. moog Dame Sène. Eh, Dame Sène loolu lan la. man man damaa pare pour ñoom. man samay adversaire la taagaa gim. yaa ngi dégg. man li mu ma ay yoon bëgguma yoon bu yomb wala ay paa wala nanga ay mag. sa lamb yëpp a métti ay morom ngeen nañ ñëw ñu bëree. mosoo bëree lu yomb dem. Dame Sène Pape Ndoye. lépp la ñu fekk. ah loolu kan moo ko dàq mais na ñooñu bëre loolu la ñuy daw. ngeen jëflante. am nañ promoteur yu taxaw bëgg ko ñoom ñu daw man damaa waxaale ba jubóo instant bi ba pare te jox ma avance donc si des mais ay tapar lañ bëri yi nii. am jàngoog kay fii Ibrahima